gannaaw bu mu liggéeyee si benn société de la place bu nekk fële sa Kër Massar lu mat ñetti weer am fa problème mu xaalis keroog nag si altine bi mu xëy ne day dem jëli ji xaalisam bi mu demee ba léegi nag del si waatul ay mbokkam ne woon nañ leen ne leen ñàkk na bakkanam si ban anam la ñàkke bakkanam ñi neñ moo ko mu nekk loo xam ne lu doy waar lool lool moo waral tax mbokk yeeg xarit yi fas yéene ànd ñoom woo émission xew-xew ñu leeral lan moo rey seen doom jooju leen ndax nañ déggi luus lool ndax neñ courant ko maas waaye nañu ko gisee dalul seen xel moo waral tax tey émission xew-xew ñëw fi fas yéene ànd ak ay mbokkam xarit am di jàmm yi ko waajuram yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen doom ñu wax nu nan lañu yëgee mbirum André Mendy moomu voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi ne nag yëgsi nañu si kër gi ñu ngi taxaw kenn koo xam ne membre la si famille bi muy Mariano Mendy di xam ne frère la ki nga xam ne moo fi jógee Mariano ñu ngi lay maa ngi lay fay bu ñu ngi lay massawu li ñu bokk xew-xew bi am seen kër mu nekk lu dooy waar ngeen woote émission xew-xew ñu ñëw fi lan la euh, waaw euh, dañuy bon sunu frère Euh, fii la nekkoon bi muy dem tàggu papam ne gars dañ ko yoraloon xaalis depuis trois mois day dem récupérer xaalisam waa ci lendemain lundi bi ci la ñu woo xam ne André daal da mujj décédé waaw ci li njóoyam ne André fa ci la ñu ne hôpital euh, Kër la nekk bu ñu yeggee hôpital ci nañ laate ni mu demee gars ne kii courant moo ko maas te courant bu maasee nit mooy euh, ñu woo sapeur wala euh, police pour def ko sans mais defuñu ko noonu noonu lañ ko mujj a dugal ci kalandoo yóbbu ko hôpital. ñan ñoo ko dugal ci kalandoo. Euh, mooy ñi ñi nekk ci entreprise bi ñoo ko dugal ci kalandoo yóbbu hôpital waaw bi mu yeggee hôpital mais seen rek ki ngi indi dafa décédé mënu mënu ma ko laal waaw cas bi noonu la demee waaw ci lay nekk noonu. mu nekk lu doy waar ñoom bi ñu koy yóbbu kon fekk na mu de fekk na mu dese de. te ñoom dañ ne ne courant moo ko maas. dañ ne courant moo ko maas. te bi ko courant maasee amul benn constat bu fa nekk clando moo ko yóbbu. clando rek moo ko ñoo jël clando dugal ko ñoo jël clando dugal ko ci yóbbu ko hôpital. entreprise bi Kër Massar la nekk. Kër Massar la nekk non euh, entreprise Diamniadio la nekk. Diamniadio lañ jugee ñëw ba Kër Massar. non non hôpital ci kii la nekk. hôpital euh, Diamniadio lañ ko Diamniadio lañ ko yóbbu lañ ne du laal waaw médecin nañ laal rek desare na ba pare mënu ko laal après nu ñu lañ mujjee woo parents yi waaw léegi bu ñu ne expliqué ne courant moo ko maas moo tax ñu indi ko noonu ne ko courant bu maasee nit mooy ngeen ah, ana sapeur sapeur indi ko wala police def ko sans noonu lañ ko mujj a dugal ci kalaan du yóbbu ko hôpital waaw loolu moo ñu jaaxal lool. dafa lu soir dafa voilà Cheikh ñu ngi ni nag toog ki nga xamante ne moom mooy waajuru góor ki nga xamante ne moom moo ñàkk bakkanam euh, ñu fekk ko nag ci état bu doy waar papa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu man daal li ma bëgg daal affaire bi daal mu mu leer ci man rek parce que man chaque affaire bi leerul du ma am jàmm mu suma ko yëpp mu mel ni day toj suma doom. li may dimbali mu leer rek loolu laa bëgg loolu laa bëgg rek maa ngi nuyu ñëpp ñu dimbal ma rek ñëpp dimbal ma waaw. yow nan nga ko yége ah, ni ma ko yëgee maa fii laa toog rek fii après ñu ñëw wax ma ko ne ma sa doom daa ci liggéey bi fële jam ñaaju ci chantier bi xaw ma nu mu demee sa sama doom sama mag ak sama rak ñoom ñoo demoon foofu hôpital bi. mais man demuloon dama neew pour ma dem fekke ñu bañ ñu dem comme da nga doo dem man maa ngi nii dama am jabet moom moo mooy dimbali yëpp mooy def lu nekk yëpp kër gi yëpp moo ñuy dimbali wax bi sax mënuma ko ngeen mbaal ma waaw ñu naa ñëpp mu nekkoon sa soutien de famille di la jàppale ndax danga nga feebar moom waaw waaw garab jabet yëpp moo koy jënd yëpp maa ngi nii din damay naan guddi ba ngoon ak suba yëpp garab jabet parce dañ ma ne hôpital bu mu manqué mukk moom du nangu mu garab bi manqué du ne ni ba jógee ni ma dem naan garab jabet bi hmm? maa ngi garab ba dimbal ma rek mu leer. yow bi muy dem keroog gis nga ko. bi muy dem bi mu jël si fii ngala pour moromam mi rek ci laa ko mujjee gis. ah après ma ne ko boo demee bu kii bul am benn affaire ak kenn bu xuloo kenn bul kii bu xeex bu amee problème nga ñëw jël si ma ñu ànd ñu dem mais affaire xale rek xale rek mu taxaw rek ne patron fay ma ñetti weer nga nii ak dugg ci fan ci ñeenteel weer damay dem gis sama papa sama yaay patron mu ne wóor lañ ko boo mooy ko dóoree bu dee ñu ne courant moo ko maas loolu la wax waaw ah, doomu njaambur itam dañ koy wax def noonu man mi toog nii sa nemoma euh, def noonu def naa sama service militaire 65 be ma génne mais mosuma laal kenn mosuma tooñ kenn mosuma dugg sa police ndax pour histoire ba maa ngi nii màgg fii laa maa ngi fii laa defee armée yëpp ba ma génne def naa ma armée yëpp Saint-Louis laa defee ba mu jeex yëpp mais maa ngi maa ngi gërëm mbaa rek na yoon bi daal mu feeñ rek mu def di def liggéeyam dëgg bi yëpp mu génne ñëpp daal di ko may naan tam Sénégal ñëpp ay Sénégalais lañu fii ya Casamance Gambie Guinée Bissau yëpp benn lañu di bu mu amati daal bu mu amati ci ci dëkk bi muy fii muy Gambie muy Guinée Bissau bu mu amati bu ko tumaa dëgg loolu ba ma keroog ma yàlla jël si bu mu amati moom lii moom bu mu amati. waaw maa leen di gërëm bu sant bu baax ñu nuyu mu ngi noonu waaye juróom yi nga xam ne moom moo wax euh, mu nekk lu émouvant nag ndax moom la yaakaaroon moo ko doon jàppale si li nga xamante ne moom mooy feebaram bi waaw nga xëy xëy ñu ne la ñàkk na bakkanam si anam boo xamante ne dafa doy waar. waaw fi mu nekk ay ma mënatuma continuer di wax parce que damay jooy rek sama xel attan jooyuma kàttan pour wax encore yeneen wax rek. dimbal ngeen dimbal ma rek mu leer rek mu leer rek. Vata ba tey ñu wéyale rek suñu émission xew-xew ñu ngi toog ak keneen koo xam ne tante la ci André tante ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ngi lay massaw lu ñu bokk. si lu ñu bokk ñëpp maa ngi tudd Charlotte Mendy di tanto André maa bokk ak yaayam yaakaar naa ne doomu jàmbur biy liggéey ci entreprise ba mu gaañu ñu ne courant moo ko rey te mu leer ne courant moo ko rey ndax ñu ñii di wax fekkewuñu yaa ngi dégg wax mu àgg sax yàlla la neex waaye bu dëgg ñëwee dañ koy wax doomu jàmbur boo koy liggéeyloo ba mu gaañu si sa entreprise nga ne courant moo ko rey lu la tere nga woo police nga woo sapeur ñu ñëw def constat waaye ñu jël yóbbu hôpital ana borom entreprise bi yaa ngi dégg léegi ñii ba ñu dawee e-, egg hôpital jam ñaajo fekk ko fu mu tëdd bopp baa ngi nàcc bakkan yaa ngi xelli deret ci courant bu maas jébi fii dafa néew yi yaakaar naa ne courant képp ku nekk xam nga luy courant courant ku mu maas bu dee da ngay wax dëgg rek teg ci sa bët boo ko gisee dinga nga xam ñun nag lii daal lëndam ci ñun tey ci ñu xel yaa ngi dégg keroog ba ñu demee tamit def autopsie autopsie bi le 8 lañ ko def mais ñoom autopsie bi ñu leen jox le 10 lañ leen jox moo nekk ci euh, datu autopsie bi yaa ngi dégg sànq dama ko fàtte woon yaa ngi dégg léegi dañoo bëgg a xam ndax dañ ko dóor ba mu dee ñu maasale ko courant pour ne courant moo ko maas wala lan loolu lañu bëgg a xam yaa ngi dégg patron bi tey jii njaboot bu nekk njaboot nga ku nekk lu nekk danga koy nattee sa bopp est-ce que tey jii bu doon doomam la dal moom nan lay réagir yaakaar naa même mala sax boo ko yoree ba mu dee di nga dem ba si ay mbokkam ne leen ah seen doom da ci man la doon liggéey waaye ndogal bii moo ñëw ñu nangu nattu bi te xam ne suñu doom dem na ba pare ñun mënatuñu ci dara waaye ñëwoo yónnee woo ba tey kenn gisu ko. xaritam bi nga xamante ne école neuf la dëkk Pape de la tudd nee na moom ba ko courant maasee moom moo jël peel dóor ko ko moom Fapal de ba ka morom yi dem ba moromam bi demee foofu di ko laajte lii la ko wax nee na ba ko ku ramassé moom moo tiit ba jël peel dóor ko André yaa ngi dégg. secrétaire bi jour boobu xaalis moo leen boole xaalisam la doon laajte pour ñu fay ko day ñëw seet si ay waajuram te mënu leen seet si ak loxo loxoy neen yaa ngi dégg da nee nañ jour boobu moom André liggéeyul. yaa ngi dégg dafa ñëwoon pour fayeeku dafa doon fayeeku jour boobu xaalisam pour ñibbi liggéeyul jour boobu waa léegi ñu seetaan ba lii dal ko tey jii kenn xamul lan lañ ko def dóor ko ba mu dee secrétaire bi door a génne enveloppe jour boobu hôpital pour fay est-ce que loolu yenu na maanaa est-ce que buñ ko fayoon xaalis ba mu leen di réclamer xaalisam loolu yëpp dina doon am yaa ngi dégg ñun nag ñun yàlla rek moo xam lañ ko fa def ndax nee nañ dóor moo ko rey waaye nan leer naññ la ñu bëgg ndax léegi mu def deux semaines lundi bii di ñëw dafa yàgg yaa ngi dégg gis nga ñun nag comme boobu ba léegi patron bi ñëwul kenn gisu ko ñun nag ñun duñu wax ay njaago lañu nañu xam ne deretu njaago moo tuuru yaa ngi dégg ñun bu ñu demee denc suñu néew ba pare metti na de waaye xëy na bosu engrais bii mooy gën a sedd seen bos ndax bu ñu wàccee suñu dëkk ba def suñu lu ñuy def dinañ xam ne njaago ku jël benn mu jël sa fukk loolu ñun njaago yi ñun ñoo ko wax yaa ngi dégg ndax day yomb lii moo fi war a jeex président Diomaye pré euh, premier ministre kii nu mu tuddati Ousmane Sonko ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla lii na leer parce que xale yéen la ñu nekk fii di xeexal ndaw ñi ba ngeen falu kon lii dafa yomb mën nit ki def ko loo xamante ne bu ëllëgee du mujj fenn lii moo war a jeex Sénégal daf fi war a jeex yaa ngi dégg daf fi war a jeex dee bu louche moo fi war a jeex lii pour lan xanaa ñoom duñu ay njaboot lii am am na ginnaaw yàlla ñëw leen ngeen waxtaan ak famille bi mais kenn gisu leen ngeen toog fi ngeen di toog lu gën a metti lii xoolal paa bi xoolal maire bi lii lan moo ko gën a métti waaye daal am xam naa ne Sénégal nag tàmm nañu leen ku dóor xamuñu ko de mais ku fayu la ñu xam dinañ fayu ba ñu xam ne fayu nañu ci kàttanu suñu borom ñu ngi nuyu nag suñuy njiit monseigneur Benjamin Ndiaye yaa ngi dégg di nuyu kilifa diine yi ku ñu ci mën a dimbale ñu ngi lay woo nga ñëw walluñu ci kattanu suñu borom ndax Sénégal ñun ñëpp ko bokk man mii toog fii di wax ak yow jullit laay seel kon xam nga ñu ñëpp benn lañu amul yàlla katolik amul yàlla julit ñun ñëpp a yem ci yàlla mais lii moo fi war a jeex wasalaam. ngeen bëgg justice def liggéeyam daal ngeen xam lan moo ko rey. justice na def liggéeyam waaw ndax autopsie bi bi ñu def doyuñu yaa ngi dégg dañoo bëgg a defaat beneen autopsie encore pour mu leer ci bopp ñépp yaa ngi dégg mais justice daal na def liggéeyam dañ koo ñaan ngir yàlla ak yonante bi lii moo war a jeex senegal moom sama doom la moo may dimbal mu dem. day wut lu mu mu jox kii da papam sax dafa feebar léegi bu mu liggéey bay am ñetti weer mu ñëw léegi boobu liggéeyul sax mu préparé bagaasam sangu ba set mu ne leen patron jox ma sama xaalis patron mu ne ko patron daal génn laal ñu ñu jël machine di taal mu jëlee machine di taal ah, xam nga moo kii moromam mamadi moromam ñoo ko duur foofu buñ ko duuree ba pare waaw ah, ñu kiiyee ba maam Pape Fodé maam Fodé moo jël peel bi nee ne dim kuraan moo ko maas ma xaw ma ci dara fii laa toog ba ñu ne ma kuraan daa maas ànd bi nag kuraan moom du liggéey kuraan maçon lay liggéey dama leen ba kuraan maas ko ne raal moo ko maas waaw comme li baax na ñu dem ma mbokk yi dem ba foofu fe dem ba foofu mu kii woon wan ko moom fu mu tëdd kii yaa ngi naaj bopp bi mu naaj bakkan gi mu sotti deret lan moo ko rey morom kuraan de wow ko man la comme de morom rey nañu ko bu doon sama doom moo nekk loolu di sàcc di def lu nekk buñ ko jàppee ma xam ne sàcc moo ko yóbbu waa day jaay doole dafa bañ kii papa bi nga xam ne mu ngi jaboot kii dafa yore jabet mu ngi noonu mënul dara bu wutee ba pare mu ne mu jox ko ba pare faa ba foodi ne moom daf dimbal daa jël peel bi mu dóor ko ah, loolu la wax ne dafa jël peel bi mu dóor ko bu mu ko dóoree peel ba pare ñu daw nag dem dem ba hôpital jam ñaajo ñu ne fekk benn mais bi fekk ko sage-femme foofu mu ne pour ñu denc ko ma naa mu naa ko ne dama ko denc dama denc kii mbokk mi gis ñu ko ngeen indi ma ko ma denc ko mu ne bàyyi leen ko foofu ba mu tëdd ba xale yu góor yi dem foofu fekk mu tëddee noonu ñaas yi ci yaramam yëpp nga xam ne boo ko boo ko bu fekkee ne day dee noonu day ñàkk rek ñu koy fomp muy ñàkk rek dégg nga ñu ne kii kalandoo bi moo ko yóbbu hôpital ñu topp ko hôpital boo dee rëyee wala doomu jàmbur rey ñu mun nañu woo kii sapeur-pompier waaye dañuy woo galandoo mu jël xale bi yóbbu ko te xamoo mbokkam te loolu rek laa bëggoon xam ne ah, président président Sonko Diomaye moo ma war dimbal maa ngi nii mënatuma dara liggéeyatuma liggéeyaw ma loolu laa ci ñaan nag sama day doom bi na leer nañ na leer balaa mu koy suul na leer waaye bu fekkee ne leerul su ma demee sama dëkk ku ma loo gis rek baax na ci yow parce que dama ko bàyyi de. metti na torop waaw moo may jàppale de mu ngi nii si néeg bi dañ koy fay kan moo ñu jàppale léegi noonu lañ koy yóbbu noonu rey ko di mel ni kaña la ñuy rey du kaña nit la day nooyu comme ñoom bu fekkee ne def leen dara mu ne ah xaaral comme yaa ngi wax sa xaalis demal ma deful lii nga dem suba wala nga xaar ba semaine nga ñëw ma jël ma delloo la ma delloo ma yégal la ci des waaye doo def loolu nga woo xale ñu rey ko ba pare nga daal di daw fuñ koy jàppee daw na ni maa ngi nii toog jàpp yàlla rek. yàlla na yàlla leeral lépp. voilà mu ngi noonu mu nekk nag lu doy waat dégg ngeen ki nga xam ne mooy yaay ji moom moo wax loolu mu nekk loo xam ne vraiment triste na lool lool loolu ñuy naan appel rek suñu gouvernement yi ñu jug si lii nga xamante ne deewam bi du nekk loo xamante ne ni day lëndam ni mu leere si ay mbokkam mu nekk loo xamante ne lu leer lay doon ndax ñoom boobu ba léegi dañoo bëgg mu leer moo tax ñu denc néew bi ba léegi kenn robu ko def na ñaari semaine kon ñaari ba léegi rek kii roofuñu ko dama daanu foofu. dafa seet ko rek ñu génne ko. waaw ah, loolu métti na trop boo reyee doomu jàmbur doo ko ñax boo ñax nga lay waaw waaw lii laa def ba xale bi dee waaw kenn gisu kenn kenn kenn kenn benn nit sax kenn gisu ko ah ngay daw rek ah ba fóot bi nga xam ne moo koy yóbbu liggéey bu bu amee chantier mu ne ko kañ dem mu ñëw mu ne ma yaay dañoo am chantier eh, jam ñaaju ma ne ko waaw bu liggéey ba pare kooku kenn gis ko sax daa daw xaw fu mu dem comme moom affaire bi fekkoon na ko fa donc moom mën na leen wax lu leer ndax moom moo ne moo ko jó dóor peel. moo ko dóor moo jël peel bi dóoru ko nee ne courant ko jàppee mu jël peel bi dóoru ko si bopp. xar-xar yi ñetti mbaam la rey noonu wala nag. boo liggéey bu problème amee dañ koy dimbal. waaw wala nga dimbal ko wala boo ko mun lay dimbal. bu dee nga ñëw nga ne ah nii la defoon wala courant moo ko laal ni moo tax waaye ma man man ñoo ànd ñoo koy ànd ak bés bu nekk ñoom dañuy dem ba Tiwaawoon ñu dem ba Kolaba liggéey waaw nii rek la dafa ne rey naa doomu jàmbur naa damay daw ki nga xam ne moo leen yore kenn gisu ko loolu dafa baax baaxul maa ngi ni ci sonn bi rek maa ngi sonn rek leeral lépp euh, doy na waar. ñu ngi lay massaw li nga xam ne moom la ñu bokk yow lan nga bokk ak André. André sama beau frère la man maay denc seen taaw man maa ngi tudd Daniel Mendy. nan nga yëgee xew-xew bi dal si. xanaa am naqar boo xam ne aw ma fenn fu mu ko mën a waxee naqar bu tiis bu doy waar boo xam ne ne ñun daal yéem nañu. jaaxle nañ lool si lii mosu ñoo xam ne Sénégal nii lay doxee waaw mosu ñoo xam ne Sénégal nii lay doxee waaye nag su demee ba dal la comme ni mu la dalee nii si ngay soog bàyyi xel ci yenn yi. lan moo xew. lu xew doy na waar lool soxna si doy na waar lool trop mais avant tout maa ngi sàqu ndimbal di ñaan si autorité yi commandant gendarmerie ba si ministre bi. ba prési président ak ministre bi nga xam ne dañ leen wóolu woon fal leen teg leen fi ñun jeunesse bi surtout Sonko parce que li mu doon xeex tey moom la am su biir Sénégal comme boog lii suñu dalee yaakaar naa ne ne mën na mën a gëstu yenn yi yenn yi mën a feeñ parce que lu rey André jaaxal nañu yéem nañu te doy na waar. yow dañ la woo ne la André euh, dee na nan nga ko yëgee. dama nekk ak suma soxna sama biir kër. ba vers 17 heures yooyu ñu woo ko seen kër Pikine ne ko daw sil gaaw ñëw mu ne leen lan la ba may dégg téléphone bi nee naa ko de lii du jàmm mu ne ma noo xaaral mu ñu woo ko ne ko daw sil gaaw ñëw ñëwal léegi mu ne ko léegi comme noonu la demee nañ dem ñu ànd dem seen kër Pikine rii bi ñuy àgg si lañ koy soog a expliqué ne entrée courant daf kaa maas jam ñaajo mu gaañu ñu daw si jël oto ñëw fi bi ñuy ñëw rek kër gi jaxasoo léegi biñ fi toogee ba mu yàgg ñu ne nan lañ war a def parce que kenn xamul ci lan la ne ak lan moo ko mën a rey ak lan nan la demee paa bi bëgg a dem papaam ma ne non papa ji toogal bàyyi ma ma ànd ak borom kër gi ñu dem xooli ci lan lan lan moo xew daal si lan la ne ñu ànd ay vingt heures vingt heures jël clando sëñ Assane wàcc euh, poste yi jël teer bi pour dem jëm ñaaju léegi benn jarbaatam doomu magam moom moo yoroon téléphone xaw moon ba xam moom moo yor téléphone bi bi ñu fiy jógee dañoo wër numéro yi ñu mën a woote ba sonn amuñu numéro sama xel daw ma ne léegi moom est-ce que amuloon téléphone ñu ne ma si am na téléphone man leen léegi nañu woote si téléphone su suñu wootee si téléphone am dinañ xam nan la demee ñu woote si téléphone am jarbaatam boobu ma lay wax moo ñu wuyu mais man xaw moon ba moom la ma ne ko waaw mais lu xew lan la demee noonu ba ngeen woo ñu urgent nañ daw si André dafa dee mu ne ma man de sëñ bi mënuma la wax lu xew waaye ñëw leen hôpitalu Diamniadio hôpital bu zone bi soo leen fa ñëwee dinañ leen wax lan moo xew ma ne ko waa d'accord ñu ngi ñëw mais téyel téléphone bi pour en cas suñuy ñëw ci yoon bi dañ la woo pour xam pour jéem la localiser xam fan yow fan nga nekk ak dan bi ñu fi jógee ba jël teer bi bi ñuy jege grand bi na ma wool saa waay ñoo xam position ma woo ko jëlul téléphone ma woo deuxième fois jëlul troisième fois jëlul may woote quatrième fois insisté quatrième fois bi mu coupé téléphone bi bon xamuñu nag lu xew bu ñu àggee wàcc gaar ba jël clando encore pour dem hôpital bi ñu àggee opital dugg bon ñu fekk fa suñu yenn mbokk ñu fa jiitu ñooñu ba ñu ñëwee dugg si si hôpital bi euh, médecin bi woo woote ñu ñuy dem ci bureau bi comme dañoo bëri groupe lañu médecin bi wàññi ñu ñu delluwaat ginnaaw à ma première reprise ma ne xaaral comme ni la demee comme ñoom ñu ngi ci bureau bi bàyyil ma xool tamit lan laa mën a def man maa dem laaj leen corps bi fañ la nekk ñu won ma corps bi fu ñu ko tëddal si benn saal muur ko pergal bu weex ma muuri ko xool ko rek sama yaram daw mais bi ma koy tiim maa ngi gis muy ñaq man sama wàll ba ak yàlla mi ma tiim maa ngi gis André di ñax man gëmuma ko sax ma tey man maa jël sama baaraam def nii xool ma gis na ne ñaq la ma tourné ko gis ay cicatrices fii ak yooyu ma ne mais lii du courant ku courant rey du mel nii ma jël sama téléphone di ko photo pour jéem a am rek voilà si laa dellu si ñëw ñoom ñu pare si médecin bi médecin bi ne dem leen gendarmerie grand bi ak ki ñu fa fekk noonu Auguste la tudd moom ñu ànd dem si gendarmerie ak responsable du du entreprise sax parce que dañuy ne garage la garage u camion yi jam ñaajo yi mais benn partie bi la ñu xaaj jox ko kenn mu fay liggéey brique machine brique bi nag moom moo ko maas mu dee te jour boobu nee nañu d'après explication yi foofu wax jeg yooyu nee nañu moom dafa doon bëgg bàyyi liggéey bi parce que ñu ko fay da doon garder camion yi su guddi gi bëccëg bi mu dem liggéey yi brigé léegi ci kaw loolu mu ne leen day bàyyi xam naa loolu peut-être moo indi lu waral waaw lu waral dee bi parce que nee nañ jàppante na fa la samedi ak euh, ñenn ñi foofu ba jot a xeex ak kenn foofu léegi la lundi le 6 lañ ñu woo nañu gaañu na courant moo ko maas comprendre nga. léegi nga demee ba tiim ko nga gis ko. si yan état nga ko fekk. maa ngi ko fekk mu tëdd parce que maa ngi foto maa ngi ko fekk mu tëdd jaaxal ñu tax euh, gémmiñ gi muur ko mais man déggoo lu ma la bi ma ko tiimee maa ngi gis ne ne man sama wàllu bopp dans ma première reprise dama ne kii du courant moo ko rey loolu moo tax parce que maa ngi ko fekk muy ñaq moom fi mu tëdd mu ngi ñaq te ku dee di yenn de façon dee surtout courant masse la ba nga dee yaakaar naa doo nekk ci état boobu noonu. ba pare fii cicatrice bi ma gis ci wetu nopp bi mu ngi sañe très bien mu ngi sañe si doq li am beneen cicatrice bi fa nekk boo xam ne man teelu ma kaa gis bi ñu ko yóbbee ba daan principal laay soog a gis ne am na cicatrice boo xam ne sañe na laal balankaar bi mais yaakaar naa ku courant rey du sañe sañe boobu noonu ah sama xalaat bu gàtt dama yaakaar ne loolu de mënul am si ku ku courant rey ba pare teg ci ñuulul wanewul benn signe boo xam ne ne waaw courant moo ko rey yaa ngi dégg bu baax li ma wax. ba pare bi ñuy ñoom bi ñu jógee gendarmerie dellu siwaat hôpital médecin bi defar kër bi ne leen yóbbu leen CTO bu ñu àggee CTO lu ma gën a yéem lu ma gën a jaaxal dañoo àgg CTO médecin bu ñëw consulter corps bi foofu noonu si am biir ambulance bi dafa yéeg ànd ak gendarmerie bi nekkoon si accueil bi bi muy wàcc si corps euh, si ambulance bi daf ñoo ne. yéen xamul leen ku courant rey nu muy mel ñun ñi bëgg a exprimer wu mun nañu mu rek mu avancé waxul ak ñun sax mu avancé bàyyi ñu foofu gendarme bi moo ñu mu ñuy taxawuñu moo ñu jàppale parce que morgue dañoo dem morgue dafa ñu dem leen morgue ñu dem morgue morgue fees amuñu fu ñu ko mën a denc ñu négocier ak waa ji ba sonn pour mu teel ñu ko rek ba le lendemain ñu wut fu ñu ko mën a def ak yooyu jéem a xool na la ñuy def ba nu dañ koy enterré ak yooyu waa ji ne ñett du si dal gendarme moo yëkkati téléphone am di woote woote na dalal jàmm woote fu ne xoolal Sénégal li fi xew mun amuñu sax fu ñu mën a denc koor léegi ñu woote fu ne amul moom xelam soog a nàcc mu woote benn euh, collègue am bi nekk principal kooku ñu jox ko numéro majeur bi numéro majeur bi mu négocier ak majeur bi majeur bi soog a nangu pour jël koor bi il faisait trois heures et quelques du matin parce que ñun bi billaahi non du ngoon gi parce que ñun balaa ñuy jóge jam ñaajo di dem euh, CTO il faisait minuit et quelques balaa ñuy àgg CTO presque une heure une heure et quelque lañ fa nekk en temps la ñuy def formalité di fay ak yooyu pour ñu dencal ñu koor bi deux heures jot na ba weesu. deux heures jot na ba weesu balaa ñuy am nag fu ñuy denc koor bi mooy trois heures trois heures quelque mooy trois heures quelque léegi bi ñu dencee koor bi ba pare le lendemain ñu war a dellu. parce que autopsie bi foofu lañ CTO lañ ko waroon defee mais waa ji dafa ne ñu autopsie léegi CTO c'est programmé soo indee sa corps tey duñ la defal si jour boobu na autopsie wala lendemain il faut ñu programmer le sur lendemain ot léegi CTO rek mooy def autopsie amul feneen fii def autopsie yeeg yeeg yooyu mais bi ñu àggee CTO euh, kii principal ñoom nee nañu ñi demoon le lendemain nee nañ ñoom mun nañ def foofu autopsie bi ñu def fa autopsie bi bi ñu jëlee foofu lettre autopsie bi pour dañ médecin bi dana docteur bi dana leen yóbbu leen ko directement gendarmerie jam ñaar ñu yóbbu ko foofu euh, gendarme bi confisqué autopsie bi ba leen wax lan moo si nekk man loolu moo ma gën a yëm te yaakaar naa ne néew yow même soo yoroon sama malaat nii tey mu dee si biir kër yaakaar naa loolu njëkk looy njëkk def mooy constat di nga woo peut être gendarmerie wala police wala yooyu ñu ñëw def constat médecin aussi mu ñëw def constat nga soo ko yóbbu mais ñoom bi ñu àggee d' après explication yi nee nañu ñoom bi ko courant bi maasee dañ ko doon jéem a rawale yóbbu ko hôpital bi ñu àggee hôpital mu ngi doon nooyi médecin bi ne leen kii nooyul bi muy ñëw fii dafa dee. médecin bi si boppam loolu leen wax man sax fàtte naa jël am ay renseignement si médecin bi mu ne kii dee na bu yàgg balaa ma fiy ñëw. ñoom ñu ne ñoo boobu mu ngi doon nooy moo tax ñu jëm ko ñu ko doon jéem a rawale ba pare teg si lu gën a yéemu moom médecin bi ñoom dañu doon laajaat médecin bi corps bi damaa xam. ñi ko indi woon foofu ñoo ñoo doon ñu ko indi ñoom ñoo doon laajaat corps bi pour delloo ko fi ñu ko jëlee woon xaw ma nag lan lañ ci jublu woon. te ñan ñoo ko indi woon foofu. benn waaj bu ñu fekk mbay la tudd maa ngi numéro maa ngi léppam kooku sax man maa ngi ko jotoo laajte tuuti parce que bi muy wax ma ñëw si wetam ne ko waaw mais kan moo doon liggéeyloo booy bi mu ne ma noo kooku de dañ ko woo urgent mu dem ma ne ko urgent lan moo gën a doon urgent waaw mu ne ma dafa dem dañ ko woo urgent mu dem mu ne ko mais fan la doon liggéey usine bi fan la nekkoon mu ne ma fii la rek à deux deux deux kii rek deux deux une heure deux minutes trois minutes dañ fa mën a àgg nañ dem kañ dem sax nga xam fa bi may waaj dem ak moom pour xam fu mu nekk usine bi fu mu nekkoon euh, la ma sama moom xaaral xaaral comme ni ñu ngi kii xaaral mu taxawaat xaar quoi parce que bëggu moon dëgër bopp mais bëggu naa dem ba xam fan la doon liggéey ak fan la ko courant bi maasee man mii maa def loolu man maa ko photo ma ba ma ko tiimee ma gis ne lii du courant man maa ko photo maa photo yi maa ngi lépp très bien bi ñu mën a am man maa ko joxe sax ba dama ko waroon bañ a joxe mais man mii maa ko joxe waat pour pour yu mel nii pour yu mel nii parce que mënuñu koo mën a denc ba lii nii am nii ba yow déjà dans un premier temps yow nit ki nga ki lay liggéeyal courant masse ko si bërëb bi mu gaañu mu dee doo ko taxaw doo ñëw jàlle si mboqam ba léegi gisuñu ko gisuñu patron gisuñu responsable garage bi gisuñu kenn est-ce que loolu jaadu na mu tey depuis le 6 ba tey gisuñu si kenn kenn woote téléphone sax wootewuñu téléphone sax wootewuñu pour jaale ji papa jeeg yaay ji mel ni sa benn mala nga yoroon mu dee nii rek nga sànni ko nii. d'accord léegi bu ñu ñëwee si kii fa yóbbu te yaay ji doon wax ne nee na kooku ma ko dóor poyal ndax daf ko doon dimbali. peel bi waaw non loolu ay explication la doon joxe si hôpital bi yooyu ay la yoo xam ne dañ ko doon wax si biir hôpital bi foofu te dégg naa ne secrétaire bi sax ki ko doon fey ki leen ko yoroon entreprise moom ñëwoon na ba foofu. ñëw na ba foofu doon wax ay wax waxi tamit wax yooyu yëpp ñun téye nañ ko denc nañ mais bi man bi ma ki ma ki nga xam ne moo ko yeb si otoom indi ko hôpital man kooku nag laa xam naa ko kooku maa ngi doon janoog moom moom laa laajte mu ne ma patron bi dañ ko woo urgent mu dem. Mm. la wax bàyyi fi dee bi loolu la wax. moom laa laajte ba xam mën naa xam fan la gaañoo fan la dee mu ne ma fii la rek deux minutes rek mën nañ àgg ginnaaw station yam ñaajo wi la nekk mu ne ma sorul fii rek kañ ñu dem moom sax nee na ma dem kooku noonu maa ngi numéro maa ngi le la le sur le lendemain dafa ma doon woo di insister pour xam même ba mu bi ñuy dem hôpital bi ñuy yóbbu corps bi man mu ngi ma doon woo pour xam nan la ñu nan la ñuy doxalee le ma jàmm woote na woote appel dem ka mu joon du mu du mu sax daan ma ko yenn appel yi. parce que doon doo la ñëw gendarmerie ñu réglé affaire bi ñu xam ne lay demee ak yooyu loolu la doon xam corps bi lan lañ koy placé yooyu ba pare ñu soog a ñëw mu si leen dinañ ñëw gendarmerie loolu laa ko tontu muy continuer di woote di woote woote na presque ay 15 heures 16 heures yootuma ko téléphone bi day sonné ba coupé mais xam naa ne foofu peut-être ñu doon jéem a ñu ñëw gendarmerie ñu am lu ñu wax foofu rek ñu bàyyi mu sedd ñu ñëw entere André ñoom loolu moo moo nekkoon seen xalaat André courant moo ko maas mu dee jeex na mais nag du loolu wax ji du loolu. engrais soo ko tiimee soxna su mu la wanee photo engrais di nga xam ne engrais courant reyu dañoo reyal suñu engrais te moom moo nekkoon su wu paa bi xale bu am jom la billaay xale boo am jom si magam yëpp moom moo si gën a am jom danaan liggéey fayeeku ñëw taxawul woo papa ji jàppale leen ba prétexte du loolu ñun lu ñuy ñaan tey mooy nañu na def liggéeyam commandant gendarmerie nañu dimbali su dee ne gendarmerie jam ñaajo nii la ñuy liggéeyee nañ ñu gëstu si ñoom nu ñuy liggéey xool na lañ parce que du yoon yow autopsie ba mu accès accès foofu lu tax ñoom joxuñu famille bi copie joxuñu dara ñu téye autopsie bi. même sooy def sa enquête tamit mais joxal famille bi nga wax famille bi sax nii la demee ak yooyu léegi nga téye mais ñoom moo nanguñu leen wax dara ba pare dàq leen si ëtt bi lañ leen dàq ñoom ñu taxaw yi foofu ñoom ñu jël enveloppe bi dugal ko ci biir du yoon jaaduwul jaaduwul. li yéen bi lan ngeen di xaar. lu ñuy xaar. ba léegi moo tax ñu téye André nanguñu ko suul nañ ñu jàppale wan ñu lan moo rey André bëgg nañ defaat su fekkee ne